Yeah.

nabiyuna wa imaamul mursalin saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd léegi di ngeen ji bindee këru diine boo dem koo yaakaar kooku kamu yaakaar sallallahu alayhi wa sallam la yaakaar kon suñu yéene yi yàlla na ko saydina muhammad mottali yàlla dafa dogal te xéewal bu rëy la pour Sénégal yàlla daf ñu baaxee loolu ñu tuddee de grandes figures de l'islam ñu tëdd tuuba Touba Tiwaawan Njaasaan ba Ñaseen Medina Baye Layeen famille omarienne mag ñu baax ñooñ ñépp nag ku si nekk ci ñoom jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi ba tax na ñun taalibe yu ñàkk solo yi ñu doon amul dara lu mën a def pour delloo njool delloo leen njukkal lu dul joxante loxo seq seen dono lu rafet lii ñu fi bay aar ko ba ku ko bëgg xajamal ak ko mën a doon ak lobby boo mën a bokk ñu jóg jàmmarloo ak yow mu jarañ lu lu ne. loolu moo waral kuréel bii ñu tuddee convergence taxaw ndono yu mag ñi taxaw yàlla dogal na nag def nañ ay jéego yu bare bari ci diir bu gàtt du suñu njàmbaar. du njàmbaaru sëñ Modou Mbacke Baara Dolli bii dend ak man nga xam ne suñu borom ci mbaaxam ci yóoram la jaarale idée bi du njàmbaaru sëñ maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba bii nekk sama nijoor bi nga xam ne moom mooy doomu ndeyu sëñ Modou Baara du ci njàmbaaram du suñu jàmbaar ñun ñëpp mbaaxu mag ñi la ndax mag ña nekk ca barsax yëg nañu ne am nañu taxaw taxaw temm ngir sàmm lu rafet li ñu fi bàyyi li nga xam ne ba Sénégal de Sénégal ba léegi jàmm ji fi am ñoom lañ ko ameel dal bi fi am mag ñi lañ ko ameel juboo bi fi am du suñu njàmbaar njàmbaaru mag yi la ndax ñoo ko nas ràbba ko démb ak bërka démb tey doo ko egsi kon nag ni ñu leen mën a delloo njukkal mag yooyu mooy ndono li ñu fi bàyyi nañ ko sàmm te bu ñu nangu benn sàmba booy xajamal ko mbaa mu xëpp ci suuf mais yàlla dafa dogal bu ñi di gàmmu ñee ras dem lolo xew fa ni ndax deug la waxna sank mag ñu baax ñett da ci këru diine yu jekk yi yu rafet yi kon lolu diversité bu yaatu la waye la muy yaatu yépp jamm la la Sénégal ma sa di jaan bi moy doomu yu layen layen bi di doomu ndeyu mourid bi ainsi de suite dañu nek une même famille d'une seule et même umma islamique ñu yàgg di yëkkatindoo di tegandoo maam Cheikh a ngi nii den daa sama sama ni sama nijoor fan yi ñoom sëñ Modou mandaté nañ ko këru ne bu ne dugg na fa waaye fu mu dem rek dañ koy naan li yéex ngeen ko def ndekete ñoom itam ñu ngi dencoon seen naxar xamuñu fu ñu koy jooyee ndax naka jekk dafa am ay samba yoo xam ne yematuñu ci ñàkkee teggin suñuy la demee ba di ci boole di daggaay kaddu yu ñaaw jëma ko ci jëmm yu tedd yu mel ni Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass Cheikh Oumar Foutiyou Tall Seydi Hadji Malick Sy Mam Borom Touba ak ñeneen ñu tedd ñu tëdd fi ci senegal comme que yematuñu ci di xotti war ma bu ñu demee ba di ci boole ay saaga yu tar bu boobaa

di yëkëti kaddu yu tar yu ñaké gën diko tek ci ñi musul am sénégal ndax buñu xassé mam cheikh ñaata yoon muy jëlale bayyi mu jall señ modou nonu keneen nonu waye légui dañu jog di yëkëti kaddu yu ñaké gën diko tek ci ña nga xamné ñun on leur doit tout li tax mu dangereux nak té fofu lay jéxalé tok leen wax ni liggéey bi tëddé li tax mu dangereux moy

ñu dem ba xaabaabal dem Tombouctou dajji mausolée ay nitu yàlla yu fa tëdd mais jigu leen ndax problème bi dafa mujje toxu nekk problème waasoo ndax dem na ñaari weer rek yéen ñëpp ko dégg ci média yi fii ci centre du Mali diggante bambara ak pël songo bu metti ba 137 morts am fa nii la tàmbalee kon nag la convergence taxawu ndoolay mag ñi buggul nekk bugguñu nekk ay magu xamoon nañu ko ay magu waxoon nañu ko la moo waral marché bii ñu def tey mais lu jiitu marche bi am na liggéey bu maam Cheikh def bu am solo parce que weddi gis bopp si jël na ko yi yi ñu naan am naag amul. amul est-ce que ay wax la ay wax la jël na ko teg ci loxo defe naa ministre de l'intérieur jox na ko ko kooku daf ko war a jox la brigade de cybercriminalité ndax ñoom am nañ ay jumtuwaay yu xarala pour mën a fexe ba traquer leen. identifier leen localiser leen teg leen ay daan yu tar état nag doo ko sas ba noppi dem tëdd jaaxaan état da nga koy sas ba pare def pression ci moom moo waral marché bi ah bu ko defee nag bi ñu yem ci loolu te ñu ngi ciy gërëm frère sëñ Modou Mbacké Bara Dolly di l'honorable député Cheikh Bara Dolly euh, une coalition avec 6 ou 7 députés. Nous avons assemblée nationale légiférer une bonne fois kon ñoko déggando muy marche bi nga xamanteni marche de protestation la bi nga xamanteni ay force vive ak ay murit ñoko ko daal di demandé kii di Jamra dal mi ngi xam dal bép disciple religieux dal ñi ngi réclamer dal ben loi bo xamanteni da fay xex ñëpp yo xamanteni dañuy saga ñi nga xamanteni moy suñu ay guide religieux ginnaw bi ñu déposer sen marche li di préfet da fa dal di refuser waat marche bi ginnaw nak bu mu avec ay raison muy ñaar yon yo xamanteni ñu ngi koy déposer alors que marche droit la bu ñu institué suñu constitution ñom régime bi dañ ko don xex du temps du régime de Macky Sall donc tay ci sen régime waroon waroon na don gàcce ñi gis daal ay demande de marche yoo xamante ni dañ koy bañal nit ñi en tout cas lépp lu ñu xam daal tey suñu jullee ci ajuma ja foofa ca buntu Massalikul Jinaan danañu xamle daal seen métit ak seen mer ba futt jëmale ko daal ci kii di Cheikh Omar Diagne pour que kii di président Bassirou Diomaye fay jël ay ndogal daal di koy destituer ci fonction yi nga xamante ni dafa concerné bépp sénégalais alors que kii di Cheikh Omar Diagne amul benn cër benn respect boo xamante ni jox na ko li nga xamante ni mooy suñu kilifa diine alors que démb président ba mu demee foofa ca Tiwaawoon ay ñaan la sàkku ci kilifa diine yi ba mu demee fale ca Medina Baye ñaan la sàkku ci ki nga xamante ne mooy Cheikh Mahi Niass ba mu demee aussi fële ca sëñ Mountakha ñaan la fa sàkku kon ñooñu dañ leen war a jox cër waruñu garder ki nga xamante ni du leen jox cër foofa ca biir palais de la république